parler et et, et j'en de travailler aujourd'hui dessus. maa ngi leen di sant di leen gërëm maman Khady Ba. Diop Ndiadio Khady Seck euh, la grosse et puis et aussi la la la petite Tabara là. bi nekk bi nekk bi nekk Guédiawaye la arrêt 64. ñu ngi lay sant di gërëm Gueule Tapée. puis toute la famille hein, mes enfants Hélène et tout. mu ngi loolu bëgg nañ leen euh, tey. tey wax ci euh, bon bah effectivement ce qui se passe ci accident yi. Mhm. je voudrais ñu jël ci benn pàcc waxtaan ci. Euh, par rapport ak accident yi nga xam ne day am ci réew mi et puis euh, ou c'est tous les ans ou c'est tous les mois ou mhm. c'est tous les cinq ans ou c'est mhm. tous les dix ans euh, c'est toujours les mêmes difficultés mhm. et et sans solution alors dëkk boo xam ne nit ñi dañu tële ñiy jiite dañu tële ñëpp dañoo tële c'est un pays qui fonctionne pas ku nekk yaa ngi xalaat sa bopp jamais jamais jamais d'initiative au travers de l'intérêt général je voudrais qu'on en parle et puis aussi j'avais envie mais yëpp li ko waral mooy ñàkk wax ñàkk wax ñàkk wax dëgg wala di wax loo xam ne doo ko xalaat mhm. li tax ma wax loolu mooy euh, euh, dama bëggoon euh, leeral sénégalais parce que des damay wax ay wax fii Sénégal ñu ne mhm. oui le gars c'est un petit français c'est un machin c'est un envoyé de la France tout ce que vous voulez mhm. parce que justement sénégalais une partie benn benn pàcc sénégalais toll nañ ci benn niveau boo xam ne de haine par rapport à l'étranger par rapport à la France surtout qui a été notre ancienne colonie am ans yoo xam ne dañoo am ay yoo xam ne jusque 1960 ce qui nouvelle euh, euh, de nouveaux états d'esprit euh, yoo xam ne mi ngi loger la entre nekk si diggante entre France ak Sénégal boo xam ne dafay jiital une certaine haine mhm. et et ça je voudrais que ça ça ça ça se termine définitivement la preuve regardez ce qui s'est passé homme politique dañuy wax tey lii ëllëg ñu wax leneen dañuy wax dara nag xam nañ bu baax li ñuy wax xam nañ li ñuy wax mënul nekk xam nañ li ñuy wax dañ ko wax rek pour justement atteindre une certaine population boo xam ne dafa nekk dans des situations de difficulté mhm. et li tax may wax lii yëpp mooy l'interview que Ousmane a alors que chaque fois mooy wax ni homme politique bu ñuy wax dara nii il ne pense pas c'est juste rek pour atteindre benn population et qu'en mm. général ils ne le pas ce qu'ils disent da leen di lu nekk parce que seen objectif principal. mooy atteindre le pouvoir par n'importe quel moyen. alors on va commencer par accident bi nga ni que euh, ou c'est tous les ans ou c'est tous les mois wala chaque jour am ay jiyee yu nga xamante ne day am Sénégal mais chaque jour aussi les mêmes problèmes. Fatima est-ce que je avoir ton café. ma mm. jaxase ko dina ci dina ci baax. tuuti ñu tàmbali si accident bi Aliou Sow mu mel ni nag Sénégal fi mu nekk nii nag caractère bu mag a mag la am ah. waaw tiis bu tiis bu mag tiis bu metti euh, ñëpp teg nañ ci seen bët. Euh, ça fait penser au au bateau bateau voilà euh, euh, oui solution yi machin moteur bi baaxul woon. mi ngi doon daw ñëpp seetaan nañ ko entre temps il se passe beaucoup de choses bu dul bateau le Joola eh bien c' est le c' est les transports yi nga xam ne lépp a ngi foofu euh, oto yaa ngi dëng dara dawul lépp a bon da ngay gis ay oto yoo xam ne da naan ñii nan la ñu amee ay contrôle nan la amee contrôle technique ou visite technique. Mm-hmm. da nga naan euh, ñi fan la ñu jaar euh, nga gis euh, yenn yenn yenn di nga maam lu ñu koy waxatee les machins là seen yooyu ñuy teg ci seen kaw la xaw ma nu mu tudd affaire yooyu ñu porte bagage yi ñuy teg ci kaw yoo xam ne ce n'est pas nga ñëw oto bi ñu transformé ko complètement def ci ay ay xaw ma ay ay Versailles xaw ma la ñu siy def la alors que Versailles c'était pas prévu juste pour yokk pour yokk yokk seen alal pour mën a am xaalis pour mën koo lekk mm-hmm. en réalité dëmm amul dëmm amul dëmm dëmm dëmm nii nii yi ay coow la ay nit ñooy dëmm nit yi ñooy lekk ñooy lekk nit parce que xaalis yooyu ngeen di lekk pour teg nit ñi ci yenn position ba ëllëg ñoom ñu war a dee wala moom ay situation wala jëndu ay pneu yu baax yooyu mooy rey nit ñi te loolu mooy dëmm loolu mooy lekk nit parce que à la base à la base au préalable dafa am yoo xam ne da ko teg te tegin yooyu baaxul parce que te xam ngeen ni baaxul waaye li leen intéressé mooy seen intérêt immédiat maanaam ngeen jéem am xaalis tout de suite et maintenant am le maximum euh, d'économie bi ngeen di def par rapport ak bien boobu ngeen yor te euh, ay sénégalais war koo jëfandiku muy euh, les moyens de transport ah. di jël xale yi nga xam ne ay bien quand je l'ai appris j'ai halluciné parce que loolu man mënuma ko comprendre mm. xale ay xale yoo xam ne xale yoo xam ne 18 ans la ñu am ñu am un permis permis normal tout de suite après dañu war a am permis Euh, euh, euh, en même temps dañu am permis permis permis poids lourd yow nga am 18 ans nga am permis ci moom moment bi ngay am permis permis normal permis pour oto yi ndaw yi oto utilitaire yi yow da ngay au même moment mun nañ la defal permis poids lourd nan ngay mën a yow ngay commencer sa dawal mëtul ku am permis kuy doog am permis munoo dawal dangay jàng dawal yow au même moment ñu lay jox permis normal pour oto yu ndaw yi oto utilitaire au même moment yow mun nañ la jox te en général ñu ci bari te ñi bëgg euh, def dawal ay oto yu mag yi tout de suite après am nga droit am beneen permis pois lour maanaam oto yu mag yi ngeen di gis noonu nit mun na doog am permis léegi bu defee permis bu ndaw bi je répète mm-hmm. mun na amaat permis pois lourd tout de suite en même temps maanaam mun na génn léegi rek doon jàng dawal dawal oto ay oto poids lour maanaam ay camion loolu xale mun na ko am booy doog a am 18 ans nga am permi loolu man maa ngi koy xam je ne le savais pas sinon je l'aurais dénoncé depuis très longtemps wala ma bind ko waaye loolu moo am ci réew mi boo defee at alors 18 ans je répète fii Sénégal parce que ñi may déglu ñoo tax 18 ans boo demee passé sa permis utilitaire oto yu ndaw yi ñuy dawal nii ci mbedd mi ci tali yi boo ko amee mun nga amaale immédiatement oto poids lourd pois lour maanaam mooy camion yi ngeen di gis ak yi ngeen di gis ci tali ak yi oto mbalit yeeg yu mag yooyu xale bu am buy doog am permis am na droit dawal ko kuy doog am permis laa wax bu defee at at laa wax at at ba dellu soir 1er janvier ba 31 décembre mun nañ ko joxaat permis transport maanaam mun na dawal moom bu ko neexee jël ay cent cinquante personnes dugal leen ci kaar euh, yi ngeen di gis nii ñuy dugal ñuy dugal ay cent cinquante personnes ci daw ba Kédougou mm-hmm. est que yëg ngeen loolu dëgg la yëg ngeen ko xamoon ngeen ko yéen yéen ñi yor réew mi yéen xamoon ngeen ni ay xale yooyu yooyu am nañ fi ana la direction des transports ana le ministère des transports ana le premier ministre les le gouvernement le président de la république est-ce que vous le savez man je ne peux pas comprendre yooyu xew ci réew te te ngay jiite réew ngeen nekk ci biir réew di koy di koy organiser te loolu xamu leen ko wala ngeen xam ko sax ba pare di ko seetaan loolu laa mënul comprendre mm-hmm. mais nan nga a am permis et puis Aliou Sow da nga wax euh, point boo xam ne xëy na ñu bëri sax bàyyi wuñ si woon xel mais mu nekk euh, benn scandale boo xamante ni lu doy waar la au-delà de ça aussi évoqué nga léegi mbirum Versailles yi évoqué évoqué nga aussi mbirum porte bagage yi di autant de problème yi nga xamante ni tey am nga ko Aliou Sow parfois oto dalay romb sax lu leer la ne bu la xoosee nga tétanos te pourtant oto boobu dañ lay wax que jaar na dem na visite technique am na li nga xamante ne moo di autorisation tey dawal ci ci. parce que alkaati bi bu ko bàyyee alkaati bi si tali bu ko bàyyee bu demee ñu indi ñu indi ñu ko ñu mu am ku ku intervenir pour ñu pour ñu bàyyi ko mu dem. moo tax mbir mi yomb. mais déjà naka la mën a duggee ndee déjà moom mu ne def na visite technique normalement. Euh, autorisé nañ ko pour mu dem. mais dama la wax dëmm amul. dëmm mooy ñooñu di lekk xaalis yooyu parce que ñooñu foofu noonu entre temps parce que déggu leen accident moo tax mais moment bi ngeen déggul accident am na ñoo xam ne ñu ngi dund ci loolu. am na ñoo xam ne am oto am na ñoo xam ne dund lañ ci seen am na ñoo xam ne. am nañ ci kër ñoo xam ne am nañ ci bien-être am ñoo xam ne sax ñu ngi ciy ñu jox seen doom ñuy lekk wala ñu leen di fayal ay école am ñoo xam ne ñu ngi ciy ñu ngi ciy baatare bu leen neexee loolu ñooñu noonu loolu noonu parce que ay ay weccat yu gars yi di dajale la pour ñooñu mën a jàll et ça loolu loolu loolu moo xew ci réew mi donc loolu boo koy def yow di ko def di ko def. Mhm. bàyyi nga benn oto boo xam ne ay pënam baaxul. waaw ëllëg ñooñu bu ñu deewee kan moo leen rey. ana dëmm et puis pneu yi Aliou Sow est-ce que pneu tamit amul durée de vie. mais pneu yi si boppam wala durée de vie sax pneu yi si boppam moo baaxul. pneu yi occasion yi nga xam ne tubaab yi bëggatuñ ko dañ kaa bàyyi dañ dañu ne pneu yi kenn amul droit dawal ko euh, Salma Sénégal nu leen neex la ñuy joxe permis yi. xam nga man je suis obligé de faire des fois ay comparaison pour xool lan moo gën. ci àdduna mm-hmm. bi. d'abord parce que li ma xam ci àdduna bi la en plus yow man li ma dund. Mm-hmm. ñun da ngay passé permis de conduire j'ai sama permis am na vingt cinq ans. Mm-hmm. da ngay passé permis de conduire ñu ñu ñu dàq la parce que yow da nga freiné da nga freiné kese te xool xooluloo rétroviseur bi parce que balaa ngaa freiné da nga war a xool rétroviseur bi freiné kese laa wax. da ngay da da dañ lay dàq yow ci ci jàng dawal parce que tout simplement yow stop bi taxawoo ba oto bi taxaw complètement parce que au lieu nga taxaw complètement nga def comme si c'était céder le passage ndànk kese ngay daw di céder di xool ndànk ba alors que oto bi dafa war immobile ci stop xàmmewuñ sax différence bi vingt cinq questions lañ lay poser fii au Sénégal je pense vingt cinq questions ci questions boo amee cinq fautes mais lu toll ni euh, dawal vingt cinq questions lañ lay posé ci code de la route ëpp na vingt cinq questions code de la route am na à peu près entre quarante ak cinquante questions yoo xam ne dafa dafa concerner le code de la route. te ci dëkk tubaab yi en tout cas la France sur les quarante questions cinq plus de cinq questions boo ko defee faute ñu dàq la fii vingt questions vingt cinq questions la foog naa. Mm. cinq yi. boo boo boo defee cinq fautes. Mhm. boo defee moins de cinq fautes ñu bàyyi la nga jàll. et puis Aliou Sow dañ naan la demal defi visite médicale boo defi visite médicale lañ lañ la wax A genre mais soo loolu c' même pas la peine c' tu paies tu gagnes seulement j'ai dépenser boobu euro amul franc français moo amoon plus de 3000 euros 3000 francs français. Mhm. pour permis de conduire bu ñu la dàqee benn yoon boo dellu trois période boobu 300 francs français ngay fay. chaque da ngay rayante pour am ko da ngay c'est même pas la peine. mais fii da ngay gis dañ lay wax il préfère defee fii permis de conduire avant ñu voyager mhm. ah, ba pare li li gën a graaw li sax des fois boo gisee ñu koy faral di amaat fële di ko parce que fii dañ leen di tricher ñu defal leen certificat d'authenticité. oui ki lay jox permis da lay defalaale benn certificat d'authenticité pour nga dem échanger ko foofu mu gën a yomb. parce que léegi avant dañ ko doon changé nii rek mais léegi tubaab dañ lay wax da ngay indi certificat d'authenticité gars yi tamit terewul gars yi tam dinañ leen jox beneen certificat d'authenticité pour ñu yóbbaale ko bu ñu demee di dawal foofu c'est c'est extraordinaire dans ce pays là moi quand je vois yéen euh, oto euh, euh, nu mu tudd kaaru kaar yu mag yi ni ñu leen di wooyee horaire yu mag yi bu ma gisee ñoom seen niveau niveau wu kii bi niveau niveau mu ni bagage yi bagage yi presque toll na moitié hauteur oto bi mhm. xaw ma ndax gis ngeen ko moitié moitié hauteur oto bi laa wax mm. bi ni mu toll ci hauteur day weng waaw oto bi day weng nga gis ay oto ñuy daw seen seen seen seen seen roue yi di def nii. di def nii yow kooku muy romb yegg ba Casamance. Mm-hmm. Mm-hmm. loolu man mënu ma ko comprendre mais nan ngeen mais lii ah, moo mm-hmm. toujours c'est la même chose. yàlla yàlla yàlla yàlla de yàlla moo ko tudd yàlla machin bato bato Joola yàlla moo ko tudd lépp yàlla moo ko tudd. su ma amee sama fetal su ma neexee fetal la yow. fetal Cheikh Tidiane te su ma la fetalee di nga dee ah. doo rëcc de. après déet su ma la fetalee di nga dee yow. waaw waaw waaw. doo rëcc. <laughs> après gars yi ne ndogalu yàlla la. bu ñu ne ndogalu yàlla la. waaw jour bi la waaw waaw waaye jour waaw kon dañ ma wax ma fetal la. Mhm. non c' pas vrai il faut régler ce problème dans ce pays là il faut ñu jaaree mbir yi ordre dëkk bi aw yoon am na yoo xam ne chaque jour nga gis ko chaque jour chaque jour. Mhm. chaque jour nga gis ay yoo xam ne. jéggi na dayoo mais mais comment on doit faire est-ce que dañu war a conseil ministériel le président il a dit conseil interministériel machin yooyu mais alors vous allez faire quoi après monsieur le président boo leen paree ni conseil après la ngeen def et déwén je vous parie laa wax alxuraanul karim laa leen waatal déwén ce sera la même chose du changer euh, boo leen defee conseil interministériel maa leen ko wax nii déwén bu fekkee changer na nee leen parce que dara du changé ci réew mi parce que am na yoo xam ne dafa am fu ñu ko war a jaaralee déjà li ngeen def nii rek ci émotion ne da ngeen def conseil interministériel c'est du n'importe quoi ça veut dire quoi parce que pour lan pour parce que seen yaram daw na. Mhm. mais demain dina am ñuy deewaat ci tali bi. demain dina am ay oto yoo xam ne suba laa wax suba je verrai des voitures yoo xam ne boo xoolee seen pneu yi jéggi na da nga naan ñii lan lañ mën a def cent quarante cent cinquante personnes ci benn bus ay xale yu xale yu ndaw di am vingt cinq ans di ko dawal procureur mu ne daf koy defal rapport alors que l'enquête n'était même pas terminée mais quel rapport mais c'est n'importe quoi ça ça va pas marcher dañ lay jàpp dañ lay jàpp nga woo ku la jàppale intervenir ñu bàyyi la nga dem wala nga fay boo amee deux mille

dañu nekk seen seen oto bi oto bi oto bi lañ nekk di ko di ko di ko di ko lool nu ñu koy waxee. di séddoo non oto bi non séddoo wuñu oto bi lañ doon defar parce que oto bi moteur bi am problème. ci rond point bi ah, ñu ne ma mu ne a une semaine rek def naa ci vingt moom moo ma ko a une semaine moom xaalisam moom def na ci vingt mille francs. ma xool ko xaw ma lu ma koy wax. Mm-hmm. mu ne ñun mais ñun mënuñu wax dara waaw ñooñu lan la leen defal ñooñu oto bi laa oto moom moo ko doon defar benn waay bu mu jàpp mhm. mécanicien la bu xaw ma bu am manqué xaw ma ban papier waa ji moo ko doon dimbali kooku su paree du ko bàyyi. da koy fay ayca Aliou fi mu nekk nii quelques minutes histoire de 3 4 minutes moo ñu dese nga wax ci interview bi nga xamante ni euh, euh, njiital Pastef fi Ousmane Sonko accordé na ko waa France 24 ak RFI. waa réew mi ñoo may fàtt seen seen wax yu bari yi. Mhm. waaw tout le bu ñuy jógee fii yii yëpp nag que li ñu war a dem demuñu sur l'essentiel. may gis ay nit yoo xam ne dañuy wax ay di wax wax tey wax suba ñu wax leneen créer ay échange yoo xam ne c'est basé sur la haine mm-hmm. parce que tout simplement on la place de l'autre et l'autre qui est au pouvoir aussi à la haine vis-à-vis de l'opposant parce que moom tam dafa bëgg a toog ci réew mi mm-hmm. donc ñuy enante taluñu liggéey réew mi la preuve un homme de l'opposition mm-hmm. j'étais choqué man defoon naa ni ba ilaa yow mi di du ma sa wax ak presse internationale mm. man man loolu laa xalaatoon man mm-hmm. parce que man wallahi su ma ko waxee du ma ko defati wala ma bàyyi waaye du ko waxati ma ne il faut que France mm-hmm. foutre la paix foutre la paix laa wax mooy foutre la paix au Sénégal bàyyi ñu ñu kooku bi mu jàkkaarloo weeg rajo France mm-hmm. man bu ma waxoon loolu su ma jàkkaarloo weeg ak rajo France je vais leur dire écoutez j'en ai marre de vous moi je veux prendre le pouvoir et je veux que vous nous foutiez la mhm. man loolu laa lay wax man yow mhm. parce que yow maa leen ko maa ko waxoon man maa ko jàkkaarloo nag samay doomu Sénégal ñu bëgg ma ci loolu mhm. ma wax leen ko ma dem laa wax jàkkaarloog tubaab yi ma leen man maa ne woon daaw je veux que vous nous foutiez la parce que dañu bëgg a changer dañu bëgg am suñu propre indépendance di dundal suñu bopp di liggéeyal suñ bopp soxlawuñu seen dara soxlawuñu sax seen terre bàyyi leen ñun ñu débrouiller soxlawuñu seen ceeb soxlawuñu seen blé soxluñu dara seen seen diwlin soxla soxluñu seen climatiseur suñu yoon nekku ci dañu bëgg ñun def lu ñu neex foutez-nous la paix je lui dirai exactement ou je leur exactement la même chose. mais est-ce que moom loolu la waxoon au début. ba man du ma wax lu amul. waaw mais dama ne Ousmane Sonko parce que boo xoolee ci interview bi ñu laaj laaj nañ ko ne ko est-ce que yow vous êtes contre la France mais il a précisé. waxul loolu de xam mais dama ne moom moo ne la France. mais daf ne. dañu xoolaat xëy na euh, coopération yi nga xamante ne mooy tënk réew ak réew. coopération gagnant gagnant loolu lay woote mais il est pas contre la France et dire qu'il est contre la France loolu fausse information la boo xamante ne ñu ngi koy véhiculer et je pense que c'était l'occasion su Penda Diallo amoon temps léegi ma génn la mi nga teg ci sa man waxuma loolu moom li mu sa moom li mu changé avis laa wax dégg ma ne la su ma jàkkaarloo nag moom dama naan yéen du ma wax non partenariat gagnant gagnant non du ma wax loolu li ma waxoon sama population mhm. loolu laay delluwaat waxaat leen man moom dafa waxoon non à la France. mais wax loolu kese qu'il nous la paix la paix ma wala génnee leen ko boog bu fekkee man du ma wax lu amul xam nga ñaari jeux yooyu laa bëggul moo tax may bëgg di tout le temps di ubbi xelu sénégalais yi. pour mu ñuy am foot la laa wax de waxuma leneen. waxuma ki nu laisse tomber ki nu machin dama ne foot la mm. loolu nga wax noonu da ngay delluwaat ma jàkkaarloog tubaab bi ma leen man maa waxoon sama population ñooñu noonu. ñu am yaakaar ci man te ma bëgg téye réew mi ëllëg ma bëgg ñu majoritaire man maa leen waxoon je veux que vous nous foutiez la paix le choix entre la France et, l'Afrique du Sud ou je la Chine ou wala la Russie. d'accord leen dañu bëgg ngeen may ñu ñu jàmm. Mhm. foutrez-nous la paix. loolu laay wax mais Aliou Sow est-ce que c'était pas aussi l'occasion leeral au niveau international ce qui se passe actuellement au Sénégal xëy na bu décliné woon offre boobu noonu mënoon na perdre xëy na occasion pour ñu wax carrément ce qui se passe actuellement au Sénégal ci wàllum viol bi nga xam ne dañ ko ciy tuumaal bi. waa ouais, mais évoqué nañ ko ci. oui mais xam nga aussi man bëgguma di parce que c'est très gênant mm. viol bi moo ciy wax ni c'est parce que dama ci war a wax parce que dañu siy déglu. Mm. dañu siy laaj sama xalaat moo tax ma ciy wax. mais viol bi li mu si wax tontu na ko li mu tontu viol li mu tontu foofu tontu wu ko Ousmane Sonko li mu tontu kii. li mu tontu euh, euh, tubaab yi euh, Christophe Babouye. yée tontu ko tontu ko juge bi joo fa ne juge bi bu ma laajati question yooyu. non mais rapport interne de la gendarmerie. moom waxul juge bi loolu. loolu la répondre. non dafa ne juge bi bi mu ko ne. bi mu ko mm-hmm. waxee affaire boobu. oui si digganteem ak yooyu. Mm-hmm. affaire viol bi daf ko ne bu ma laajati loolu. loolu la ko wax maître El Hadji ngi toog ses avocats Moussa Sarr ngi toog. Mm-hmm. daf ko ne bu ma laajati loolu tontu bi mu tontu tubaab yi Christophe Babouye tontu ko kii. léegi maintenant après ils vont dire que on a la haine mais haine de quoi mais on dit la vérité. mais bokkuñu nag. non déet non adeet. Euh, ah kii journaliste la. waaw kii procureur la. waaw mais d' accord kii ci affaire ci affaire xam nga xam nga non bokkul non plus wax la wax. d' accord. Euh, wa dama ne. tey jii ah euh, enquête am na ma toog ak procureur man nii. Mhm. ni may waxee. ak ni may waxee suba ci benn interview ak journaliste du bokk de. du la war a bokk. non xam nga du xanaa du wax dëgg rek wax dëgg rek te yàlla tax. <laughs> et puis rapport interne de la gendarmerie. waaw c'est la première fois Ousmane Sonko di ci wax si pas la première fois muy jël ay éléments di ko jox le juge. donc non dama ne dama ne non dama ne man maa man. Mhm. man tontu boobu ñu tontu laa wax euh, euh, dégg nga maam euh, journaliste bi. Mhm. loolu ñu tontu journaliste bi. loolu tontu boobu gën na leer tuuti ba tey sax leerul waaye loolu du tontu boo xam ne sax moom war na ko tontu ñooñu. danañ war a wax c'est une affaire qui est pendante en justice on verra bien la suite. suite bi danañ ko xam amul lu muy jox kooku comme question. comme réponse man du doof xam naa bu baax. mais xam nga on lui a posé lan moo tax nga bañ test ADN. non dama ne oui test ADN bi. oui la question était précise aussi. non mais d'accord mais test ADN bi xam nga question bu réponse bu gën a ili euh, euh, leer. ne dana am ca procès. moo am sens waroon a wax mooy ne ko écoutez cher sama xalaat. loolu waxu kii bi c'est Ousmane Sonko en tant qu'homme politique qui est là. Mhm. certes accusé dans une affaire privée c'est une affaire qui va se régler au procès. point barre mais il pense pas que c'est privé moom il pense que c'est un complot. déjà ça pose problème non mais non non xam nga lu non complot mun na complot mun na nekk sax privé. Ah. waaw mais moom il pense pas en fait que affaire privée la yëfi ñaari nit la. mais mais mais pourquoi du nekk yëfi ñaari nit parce que ñaari nit ñoo ko seqoon au départ ba porte plainte am ci. d'accord demoon dem dem dem sud bu te am na wala amul. mais am na wala amul. waa kon c'est une affaire privée. parce que vie privée la quand dem di euh, euh, même même sa massage sax boo koy def c'est privé. parce que fi ngay defee da nga nëbb quand entre yow nit ki la. waaw c'est dommage donc waxin yooyu jëfin yi wax fii def parce que xam nga boo gisee may xaw a kii nii sax mm-hmm. c'est parce que yu mel nii damay wax ni sénégalais tout le temps mm-hmm. euh, il faut ngeen def attention par rapport ak parce que homme politique la parce que mm-hmm. sénégalais léegi ñu si bari dañoo am haine entre ñoom te homme politique yi ñoom ñoo tax ñu am haine parce que nit ñi dañuy homme politique yooyu nga xam ne wax yi ñuy wax des gëmuñu ko te balaa ngaa xamoon loolu ñu jël nguu mos naa taxaw wax Guy Marius Sagna ñetti weer laa la may bu nga bàyyi ko parce que nit ku dëgg nga te wóor na yàlla yow bés boo nekkoon président li nga bëgg bu fekkee na nga bëgg mu continuer xamal ni yow loolu mënul nekk man wax naa ko ci ci émission mm-hmm. xam nga lu tax parce que dafa àdduna bi dafa am nu muy fonctionner il faut ñuy expliquer Sénégalais yi àdduna nu muy doxee mm-hmm. que boo mënalul sa bopp pour le moment dafa am yoo xam ne da nga la Chine n'a pas créé pour être la première puissance économique du monde Chine à la ci ay bor Chine moo ko lebal ci diggante 40 ans la Chine s'est développée coow jibul wax bariwul am na yoo xam ne boo koy def jarul ngay wax guy kenn du buuxanteeg moom guy guy kenn du buuxanteeg moom il faut faire du fractal d'accord et éviter de faire du frontal parce que booy buuxanteeg manga de xaw ma xaw ma Balla Gaye alors que yow yaawu jaal nga tudd mm. eh bien dafa am da nga war a dem entraîner ci pet d'accord